بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أهمة الشيخ لنا بهذا المحضر تعطي بنظرة تأتي لنا بظهر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki جلني في سنتور ak turi mbooloo mi ñu ànd ak Cheikh Mouhamad Kabir Dem mi nga xam ne moo doon wax léegi ak suñuy doom ak suñuy jarbaat yi ñu ànd ak ñu ngi leen di nuyu di leen jotalit nuyoo bu waa pay euh, ñu ngi nuyu le consul général Moustapha Lom di ko jottali suñ nuyoo mu jëm ci communité sénégalaise bi nga xam ne moom ñoo fi nekk góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi nuyu taalibe yi nekk fii di ko jaaree ci Cheikh Ibrahim Gaaj waaye di nuyu jamiyatu ansaar diin ci njiital Mouhamad Lamine Sarr di nuyu mbokk yi yépp suñu mbokku espagnol yi nga xam ne ñu ngi teew doonte dégguñu wolof sax waaye seen xol mu ngi bànneexoo jékkiyaale ngir yàlla tabaaraka wa taala di nuyu mbokk yi jugee France ak ñu jugee ci barab ñu fasantikoo ngir bokk ak ñun jotaay boo xam ne dañ koo fas ngir yàlla tabaraka wa taala te ku jékkiyaale ci yàlla ñi nga jékkiyaale luñ am rek nga am ci sa cër suuti yàlla yi ñoo wax ne man taxaqaqa bi xaalatin lam yaxlu xaadiruhu minha dund benn xaal ci yàlla ba mu wér ak yow di ci mucc te seen wax jooju xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo dëggal ndax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen masalu jalisi saalihi wa jalisi suuyi ka naafixi kabaai jikki xaale bu baax melookaanam mu mel nii kuy ànd ak kuy jaay parfum walla kuy toogaaleeg kuy lakk kër yi di weñ yi jaaykati parfum bi benn mun ngi cee jënd mbaa mu ci nga yóbbaale ci xet bu neex jaaykati këriñ it lakkati këriñ moom mën naa lakkaale sa mbubu mbaa nga yóbbaale ci xet bu naqadi loolu tax jikkaale bu baax luñ soxla la te suñ thème bi tey sax ba tey daf ñuy xiiraat rek ci jikkaale bu baax ndax yarab islaam lañ wax ak internet beeg la ca nekk internet rek li ci nekk ba tey jikkaale rek la ndax mooy dugg am na koo xam ne moo lay demande nga nekk amee wala nga ñàkk ko nekk moo tax tànbal tàmbal jékkiyaale bu baax tim foofu ndax mën nañ koo tuddee jékkiyaale bu baax mën nañ koo mën nañ koo tuddee jékkiyaale mën nañ koo tuddee dëkkandoor lislaam nag diine la boo xam ne dafa sonnee yar doomi aadama yar ko pour mu nekk jaamam yàlla bu baax bu xasee ba baax kooku moom mooy am texey àddina kooku tim mooy am texey àllaaxira lislaam نيت رجله العقيدة والشريعة والأخلاق بس بس يا خمي موين يقم قم يا الله مو موي تصاني ndax bu xasee ba am ci la topp yàlla di ñëw nga xam ne sharia ay digal la ak ay tere digali sharia bi ak i tereem lii muy jaamu yàlla yi nga xam ne danga koy def say julleeg say koor ak say naafilaak say asaka sa aj lii nag jëm ci sa jikko bu baax dafa mel ni gëm yàlla tabaaraka wa kon mooy mooy njëbbat gi lu baax lu nekk rek gannaaw gëm yàlla lay ñëwee moo tax Cheikh Ibrahim radiyallahu wax ne xéwal yépp gannaaw xéewal ak am bi la yàlla amalee yàlla bind na la xéewal bi gën a màgg gannaaw xéewal boobu mooy xéewal yi gëm yàlla xéewal yi gëm yàlla nag lu tax mu gën a màgg jaam yi jege yàlla muy ab rasulu ku yàlla yónni muy ab yonentu ku yàlla jox wax yu walla muy ab wàlliyu muy ab saalixu kenn ci ñoom mënta jot benn maqaama ci maqaama yooyu lu may gannaaw bu ngëmee yàlla buntab xaritoog yàlla ci gëm yàlla lañ koy amee laa inna awliyaa allah laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun alladina amanu wa kaanu yattaqun xarit nag li koy defar li koy saxal mooy liy liy kontaanloo xarit ku dem ba nekk xaritab yàlla lii tax mu sax nekk xarit yàlla mooy muy topp ndigal yàlla yi bàyyi tere yàlla yi moo tax mel melal leen alladina amanu wa kaanu yattaqun nga xam ne dañuy gëm yàlla ragal yàlla gëm yàlla ragal yàlla mooy topp ndigal yàlla yi bàyyi tere yàlla bu fekkee gëm yàlla mooy njëmbat gi jaamu yalla yi moy ndox mi nga xamne moy rosé roose njëmbat jikko yu bax yi nga xamne moy juddo ci lolu dafa melni lolu moy mooy motax l'islam lim la diggal yeb boko topé da nga gis ne ci mu jël lim soxla ci yow moy nga jëlé ci gëm jëlé ci ragal te lolu moy lay tax nga top jikko yu bax yi nga xamne mom lay di ba yalla di wax ci bakkan الشمس وضحاها القمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها لول لك لرون وخ موتاخ مو غن اكسي سي بكان ميغا خامني موكو بيند ba mu ko bindee nag fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ba mu bindee bakkan yàlla xamal ko lu jub xamal ko tim lu dëng mu mën a def lu uuteeg li yàlla bëgg mu mën a def tim li nga xam ne moom la yàlla gërëm yàlla nag ne qad aflaha man zakkaha ki selal bakkan bi nak koku mom mo taxé selal man ta nek lumay ci jikko yi nga xamné mom la la yalla sante nga top top ndigal yi bayyi téré yi jikko lepp danaka imam al-ghazali wax né jikko danaka dafa teunkou jikko yu bax yi ñu wara l'islam di yaré nga xam ne pour am texey àddina ak am texey àllaaxira la yépp mu ne mu ngi mu ngi làqatu ci ci maandu ak am équilibre maanaam lu ne nga jox ko lim moom yow dafa am loo moom am lu sa morom moom am lu sa borom moom lu nekk nga jox ko lu moom jikko yiñ tagg yépp sax dangay fekk ñu tagg ko fekk jéggiwut dayo maanu mooy nga jox nit lu moom waaye man loo maanu ba joxe loo xam ne ni yow moomu ko ki nga koy joxe moom wax dëgg nga xam ne ci jikko yi gën a baax la bokk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gëm yàlla du fen jàmbaar lim baax baax boo jéggee fi mu war a am dootu nekk mbaax xikma xereñ toroxlu suufeel sa bopp boko defé ba sank hak yi nga xamné ne ko rona garder ba tay dig nga li soxla muñ man selal xebu am muru ah, moy nga nek nga nek mbagnam rus am loh xam ne yow dang ko passé fekkone boko defé ne sax dara la ci fekk yow passé nga dootu doo ko def maanaam jombale nga ko sa bopp moo tax doom mi aadama moom ci boppam dafa soxla moom nekkam gi nga xam ne dafa boole bakkan boole yaram boole xel boole xol boole ruuxu lii yëpp dañoo war a ànd ànd boo xam ne nii bu am équilibre la benn ci loolu du tooñ lenn ci loolu loolu yarab lislaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a toog dégg ay saxaaba yoo xam ne dañuy waxtaanee jaami yàlla ak yonent bi sallallahu mu mel ni ñoom dañ koo xeeb kenn ci ñoom ne man de dootuma nelaw guddi guddi yëpp dama koy ji kenn ci ñoom ne man de du ma takk jabar kenn ci ñoom ne man de dootuma dagg koor fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen di dégg mu ne leen maa leen gën a ragal yàlla waaye damay oor ay jamono di dagg ay jamono damay naafile xaaj ci guddi di nelaw ab xaaj te damay takk damay denc jabar ba pare ne man ba am sunnati fa laysa minni koo koo ku sib suma sunna waxul nga bàyyi leen ci loolu te fekk bu sib waaye nga sib sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bokkaloo ci nga xam ne boobu lu doon jàngal ñooñu mooy équilibre parce que am na koo xam ne dem na ne moom du takk jabar ba pare jàpp ne loolu gërëm loo yàlla la ci la ci jublu dem nag ba dem dem mooy yàlla loo xam ne bu takkoon jabar mën na cee am yàlla ndax ba yonent bi waxee sallallahu alayhi wa kenn ci yéen sax bu tëddee jabaram yàlla fay ko yooli sarax benn saxaaba ne ah ñi faj suñ bànneexee bakkan yàlla di ñu faj yooli sarax yonent bi ne ko loo xam bu fekkoon ne danga koo def ci lu xaraam or baax na lool waaye boo demee ba tax nga lompañ ba waxtu bi nga waroon a génn dem liggéey yi waxtu julli guddi baax na lool waaye di ko def ba heure bi nga xam ne ci nga ci nga ci ci nga war a dem liggéey yi nga sànk loolu ko defee ñi wàññi la wala ñi wàññi ñi ñi ñi ñi ñu xañ la sa liggéey nga dem kër ga nag euh, soxna si baax na lool waaye joxe na dépasse juróom-ñaari fan léegi sonn na te dara wax waralu ko lu may sa julli guddi boobu nga doon def moo ko waral te xamoo ne yow boo joxe woon dépasse luqma bi ngay dugal ci sa gémmiñ yi euh, njaboot sarax la kon nga xam ne maanaam jikko yi li Imaam al-Ghazali wax ne jikko yi yëpp mu ngi taxaw ci tawaazun i'tidaal dégg nga balance nga xam ne lu ngay def yëpp dafay am dafay am balance tabaya lu baax la islaam daf koy dundale waaye boo ci jéggee dayoo ba martabaay xaalis jot la mooy nga def lo war ta def ba lu war ba li nga wara def ñëw do ko man moy mooy martabaay xaalis jot yàlla gëna a tagg dundale waaye mu ngi lay ko ci balance wala tajal yadaka maxlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fa taquda maluman maxsuura bul jël sa loxo bi def ko mel ni kuñ gëx nay ba mel ni dañoo takk sa loxo bi nay moom baaxul ndax ku nay dafa sori yàlla sori nit ñi sori àjjana ku tabe fa jege yàlla jege nit ñi jege àjjana waaye bul yàq yàlla ne bul jël sa loxo mel ni dañ laa gëx waaye bu ko tàllal gépp ak tàllal bu boobaa nga mujj nekk ci ki nga xam ne dañ dafa nay maluuman lay nekk ki nga xam ne dafa tàllal bu ëpp maxsuuran lay nekk dafay dem ba soxlaa mi gëw koo martaba xaalis jot ko kon léegi jaam bi dafa soxla ci yaram islaam daf lay yar pour yow ci sa bopp nga am équilibre yow ci sa bopp nga xam ne kiyaan la benn benn nekkin la boo xam ne du def du du xeex ak du def tanaakut ak boppam bu defee lu nekk nga wàccee ko wàccuwaayam jikko ju rafet li nga xam ne moom mooy yaram lislaam wax naa ne jaamu yi yépp pour jikko rek la ndax ba yàlla santaane julli lu ñuy wax ne julli loolu la ñuy defal inna salaata kaanat kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutan inna salaata tanhaa ani l-fahshaa'i wal munkari wa lazikrullaahi akbar julli dafay demee lu ñaaw demee luñ sib ba pare ñu tudd yàlla moo gën a màgg ñu tudd yàlla gën a màgg kon da ngay xam ne sa tudd yàlla ci sa julli julli googu moo gën a màgg ndax julli pour tudd yàlla aqimi salaata li zikri bu fekkee na salaatu tanha anil fahshaai wal munkari julli dafay deme lu ñaaw ak luñ ñu kon nga xam ne kon julli échelle la boo xam ne pour tarbiya jaam bi pour mu bàyyi def lu ñaaw bàyyi lu ñu bala ngaa julli jàpp bi ngay jàpp pour bàyyi lu ñaaw la ak lu ñu ndax jàpp zaahir bi rek li ñu ci xamee mooy dindi tilimi yaram lu tax nga koy dindi tilimi yaram yi lu tax nga ko bëgg dindi li gëna tax dëgg-dëgg mooy yalla mo ne defee nañ ko ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom la yalla sant julli ne bala nga julli na nga japp bo xamul li ci wara jëlé sax yow jam nga borom bi tek la euh, santane na ci làmmiñ yonent bi nga top waye boy jëfëndiko sa xalaat da nga gis ne da nga am rendez-vous ak sa borom da nga wara setal sa yaram man nga ko ci déggé yonent bi tim jàngal ñu ne eh, jàpp dafay demee bàkkaat dafay demee bàkkaat te xam nga sa mbubb mi boo ko fóotee bam set nu mu gën a setee noonu ngi gën a ragalee mu tilim boo jàppee léegi ba mu wér na ne léegi jàpp bi demee na sa bàkkaat nga war a jàpp pour dajeeg sa borom sa rendez-vous boobu est-ce que da war a ut ay bàkkaat bala ngaa dem julli wala da nga bëgg a ak yàlla fekk yow yaangi sel nga nga ak yàlla fekk yaangi sel sel sell googu daf lay égal ci benen sel sel googu lu muy def ci yow moy sa xol bi lay laabal bu xol bi laabee dana dégg lu jugee ci yàlla dana nangul lu jugee ci yàlla dana top lu jugee ci yàlla dana dem ba nga xamné da fay bëgg lu baax bañ lu bon walakin allah habba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة يا الله اللي وحنا يا الله مولين بقلو قم يا الله مملني قم يا الله قم قاعد وحنا يا الله مولين مولين بقلو قم يا الله لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقلنا وكره وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان dëgg la mu bañ loo leen wéddi yàlla waaye ba mu leen bañ looy wéddi yàlla ci daf leen a bañ loo topp yàlla euh, mooy yàlla di ko wane nga dem ba àgg ci mu bañ loo la mooy yàlla sax doonte wane ko ndax fusuuq mooy mooy yàlla di ko wane waaye isyaan mooy mooy yàlla rek mën naa am da nga koo nëbbu sax waaye gëm yàlla gi bu saxee ba nga dem ba nga xam ne dañ koo bëgg lii li lii xeex loolu loolu da koy bañ lépp lo xamne ni da fay xex ak gëm yàlla gi muy moy yi nga xamne ni mom la tuddu ku fusuuq wal asyan gannaaw kufur bi nga xamne mo gëna mag a màgg loolu yëpp xol bi mo sel xol bi bu selé ni yunus sallallahu alayhi wasallam wax ala inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb lumbu mu ngi ci yaram bi boo xam ne bu sellee yaram bi yépp sell waaye bu yàqoo yaram bi yépp yàqoo te li koy yàq mooy ci koy ñaaw rek fen uruj tooñ sàcc mooy yàlla xeeti mooy yàlla yépp njaalo naan sàngara jëw def lu bon tuur dereti nit ñi looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ñu ne ku gëm yàlla sax du tuur deret ndax al imaanu al imaanu qaydul fatki la wax mu ne gëm yàlla dafay dafay téye nit ki dafay tënk nit ki wëlis rey parce que koo xam ne génn ci mbedd mi rek am safetal reyee innocent li nga ku la neex nga rey koo bañ rey te yow duur na yaa ko bind duur na yaa ko war a war a dundal gëm yàlla mën naa dox sa digganteeg loolu moo tax nga gis ku gëm yàlla teey ba nga foog ne dafa tóoyit waaye bu ngeen àggoon ci def ndigal yàlla nga xam ne tóoyit moo la gën a sawar waaye gëm yàlla gi mooy def ci moom tey yar bi bu ci jiitu mooy nga gëm yàlla boo xasee ba gëm yàlla nag ci la jikko yu rafet yi yépp di ñëw jikko yu rafet yi moog yu ñaaw yi xajoowuñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg na jikko ju rafet ba gannaaw boo xamee ne yàlla ci boppam moo wax wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla daf ko tagg ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yaa ngi ci jikko ju rafet jikko ju rafet la ko yàlla tagg ku am askan la ku am nangam la ku am nangam la ku am nangam la waaye li ko yàlla taggee dëgg dëgg mooy jikko ju rafet moom mu wax ne أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة axaasinukum axlaaq ki may gën a jege ci yéen yowmal qiyaama mooy ki gën a rafet jikko est-ce que ku gën a rafet jikko dafay fen est-ce que ku gën a rafet jikko dafay sàcc ku gën a rafet dafay njaalo dafay jël lu moomul dafay tooñ dafay tuur bakkani jàmbur dafay wax ci deri jàmbur lu moomul ki gën a rafet jikko dana dana teet loolu yépp ñaan ittewoo rafet jikko ba daf koy ñaan ci ñaani guddeem yi yàlla yàlla nga rafetal sumay jikkoo ne kenn du rafetal jikko yi lu may yow yàlla tabaaraka wa taala tagg jikko ju rafet ba tagg jikko ju rafet boo xam ne nii ab xéeféer ab yahut boo xam ne ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jugee ci ghazwatul ahzab te ñëw ba teg ay pagaasam jibril ne ko yaa ngi summeeku waaye summeeku jotagut yàlla joxe na ndigal pour ñu dem ci benn Qurayza parce que boobu gannaaw la fa dox yëpp ci taarix ak xuruj yooyu yëpp ba ci bi war a xeex ak nga xam ne lu bëree nga ca biir comme loolu tax ñoo jug waaye li ma ci bëgg a wax rek mooy biñ demee ba àtte leen jàpp góor ñi war leen a àtte am na ku ñuy wax amru bn soada boole nañ ko ci ñi ñu eewoon ñëw nañ gis mu ne mes kenn xamul fu ñeneen yonent bi amru bn soada de moom rëcc na ci buumam gi kenn xamul lu ko rëcc lu yonent bi ne xam naa ne sallallahu alayhi lim nekkoon borom kóllëre moo tax yàlla musal ko fekkee kóllëre mën naa musal ba musal koo xam ne nii mu ci mbooloo moo xam ne yonent bi yàllaa leen jox ndi yàllaa ko jox ndigal pour mu xeex ak ñoom muy bën a Qurayza kon nga xam ne matal kóllëre bu fekkee mën naa jëriñ xéeféer boobu naka kon jullit nu mu war a def ak matal kóllëre jullit bu nekk war naa ragal a nekk naa feex تينتبي صلى الله عليه وسلم وهنا آية المنافقين ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان كو خمنا بو فن بو جوخي ديك اوتيب ديغامي buñ ko óoloo mu fekk ci kóllëre la te xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na feneen ne laa imaana liman laa ahda la koo xam ne amul kóllëre kooku de gëmul yàlla nga xam ne lislaam mu ngi faj jikko yu ñaaw yooyu yépp ci tarbiya jàmm am na beneen riwaaya boo xam ne daf ca yàgg wa ida xaasama fajar bu xuloo rek dana kàccoor mooy ñi nga xam ne bu ñu xuloo ah benn la ma wax de waaye wax naa ko fukk yu métti yu tàng yoo xam ne fukk yi na nga xam ne benn bi benn bi fekkee ne sa fukk yooyu am na ci benn boo xam ne moom bosam rek ñoo em ba moom ci am bàkkaar waaye li des ci juróom-ñeenti yépp sa bàkkaar lay nekk ndax nga jéggale moo gën waaye booy fayu defar leen léegi la def benn aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa xayrun lissaabiriin booy fayu te loolu yàlla yonent bi la ko doon yaree nga xamee ne rey nañ xam ne mu ne danaa fayeeku ci juróom-ñaar fukki ci ñoom yaar yonent bi ne ko booy fay moom defal nañ leen fay waaye boo muñee muñ moo gën ñeel aji muñ muñ ni metti yàlla du ne daf laa wax muñal rek toog waaye daf laa wan ne kii muñ dafa am yool bu ko war a fay inna allaha maa sabirin hmm? jëf yëpp seen yool am na fu mu waaye ومنكدين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يلا يعني منكدي يلا يعني لين فايسن يول تلو دهود تلو دهود ميكوي كنت ديكو ليميت لولو كو بغلو لا مون لا واي بو تاخوتو نك ليغا خامني موم لا لا يالا ديك تي يو باخ يم بوبا ديف لو باخ مانا لا واي يالا دا فا يار يونس بي صلى الله عليه وسلم wax ñu ne ñun nañ roy ci yonent boobu nga xam ne moom yàlla tabaraka wa taala moo koy al bopp kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma ngeen roykaay bu rafet ci yonent yàlla muhammad boobu ku ko mën a ku ci mën a royee yonent bi pour ñëpp roy ko la waaye ñëpp àgguñ ci man koo roy ñan àgg ci man koo roy mooy ñi yàlla tudd nii mooy ñi gëm yàlla gëm àllaaxira di tudd yàlla bu bari nga xam ne yooyu tudd yàlla lu bëri gëm yàlla gëm àllaaxira mooy yombalal nit ki mu mën a roy ci yonent bi sallallahu ci yonent moo lay àggale ci jikko yu baax yi nga xam ne ni buñ ko génnee ci lislaam lislaam bi des ndax bu fekkee da ngay or kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tettaqun yàlla dafa leen a waral koor comme ni nga ko warale woon ñi leen jiitu yàlla dafa bëgg ngeen or noonu rek pour xiif déedéet ngir ngeen ragal yàlla kon nga xam ne koor daf lay yóbbu ci jikko ju rafet moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis man lam yada qawla zuuri wal buhtaani wal amala bihima fa laysa lillahi xaajatun fi an yatruka taamahu wa sharaba koo xam ne yaa ngi or te taxul nga ànd ak jikkoy or moy bàyyi tan bàyyi duut bàyyi wax lu amut mi nga yàlla amut soxla ci sa koor kon nga xamne jaamu yàlla yi yàlla li liñ ci bëgg moy mu àggale ci ci baax الحج عشر معلومات وان فرد بين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا fa inna xayra xaj boo ko doo sëy doo def defi génn sax werante bu fekkee nag aj daf lay aaye yooyu yëpp diit bi lu tuuti tuuti am na koo xam ne ci diitam aj la jànge maîtriser boppam ci la jàngee mën a ci la jàngee nit dëgg la te doo wax dara parce que yow da ci da nga xamee ci sa bopp parce que boo gisee yàlla di aaye eh, bo ajee rek da nga xam lu tax yàlla lim di aaye ci aj mu boole ci bul werante parce que li indi werante ci aj dafa bëri lool da ngay toog rek nit daane nit ci sa kaw yow bu ànd ak sa sabab da ngay tourner nag ko lu tax ngay daanu sama kaw waaw waaye yow booy seetlu sa bopp ci aj da dëgg koo xam ne bëggoo koo dëgg moo tax bu ñu la dëggee yow nga jàpp ne rek comme sa bos la nga mën a continuer loolu tëdrib la bakkan dañ koy dañ koy tàggat du mën ba ba na koo xam ne dafa jug rek yaru waaye am na koo xam ne mooy yar boppam dégg nga jikko yu ñaaw yi liñ koy faje wala teg ak teg ko ci sa kanam seet boo ko defee la nga ca war a am la nga cay góobee ëllëg la nga cay góobee ëllëg seet ko ay safaanam rek nag moo koy faj su fi yankee dañ doo wax ne nit ki bu yëgee ci boppam ne moom dafa rëy waxtu wu nekk rek nay tàggat boppam ci def loo xam ne nii dafa uuteeg am na ay gars yoo xam ne ni dara jotu leen soxlawuñ xaalis soxlawuñ dara dañ daan xëy dem ci marché bi di enwaan te am nañ xaalis waaye rëy gi seen bakkan bi te rëy di mbalaanam yàlla te yàllaa ko wax ne rëy sama mbalaan la ku ko xëccoog man ma alag la te du ma faale rëy googu moom lañ doon moom lañ doon faj ci seen bopp ma ne dund xadis yontu bi sallallahu alayhi wasallam jàngal nañu ne jikko ñaaw yi seen safaan moo koy faj ci xadis wax na ne bu fekkee ne danga gëñ ci laata xam nga loolu shirk la bokkaale yàlla lan moo koy faj mu ne nga wax laa ilaha illallah loolu mooy yu ñaaw yu baax yi mu ne bu fekkee ne sa mbokk daf laa wax ne ñëwal ñi carte ya wax sa mbok ne ko ñëwal ñi carte taala uqamiru mu ne demal nga saraxé xam nga carte dafa xaraam da saraxé top digal yalla nek ci kon jiko yoy nga xamne dama ñaaw doon ko koy yalla ci sa jeflanté ak nit ñi amu dara lu mëna gëna fajj nit ñi boy deglu alquran pour rek sa gëm yalla yow wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaanan wa ala rabbihim yatawakkaluun nga xam ne bu ñu leen jàngalee alquran mu dool leen gëm yàlla ñii wàkkeelu ci seen borom mën teg sa bakkan ci yoon yàlla pour mu jubal jubale rek wallaziina jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa ñi nga xam ne dañuy mën teg seen bakkan yàlla mu ne danaa leen wan sama yoon mën teg sa bakkan nag mooy lan mooy fekk nga loo xam ne nii alal la goo xam ne mu ngi ci mbedd mi kenn gisu ko boo ko jëloon dara du la ci fekk nga ne lii daal yàllaa ko moom man duma ko jël nit tooñ la nga mën a fayu nga baale ko ngir yàlla yàlla ne kooku dama koy dama koy jubal mu dem ci suma yoon moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla lu ko mel ne قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم yàlla dafa tuddee yonent bi ne leer la ndax dikkal na leen leer ak téere bu tukkee ci seen borom kon ñu xam ne leer bi ak téere bi beneen affaire la doonte téere bi am na fu ñu koy tuddee leer leer boobu ak téere boobu yàlla def ciy jubal koo xam ne dafa topp ngërmaande yàlla ci topp lii gërëm loo yàlla yàlla ne bàyyi nga bàyyi bul fen doo fen bul sàcc doo sàcc na am kóllëre na nga am kóllëre bul xuruj doo xuruj bul njaalo doo njaalo bul tooñ doo tooñ te kenn amul dayoo ba àgg ci war a mën te yàlla ci boppam wax ne inni xaramtu zulma ala nafsi fa bainakum baynakum muharraman fala tazaalamu damaa xaraamal tooñ ci sama bopp ma def ko muy lu xaraam ci seen diggante bu leen tooñante moo bu yàlla waxee ne yàlla dafay jubal nag jëm ci leer googu koo xam dafa topp luy gërëm loo yàlla yàlla jubal ko mu jëm ci yooni yàlla ci boppam salaamu naa na am nañu firee yàlla ci boppam ci aaya ji doonte ci tur yàlla yi la bopp génnee leen nag ci lëndëm yóbbu leen ci leer ci ndigalam moom yàlla jubal leen jëm ci siraati mustaqim comme luy jubal nit ki mu jëm ci siraati mustaqim aaya xamal nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa yonent bi moom ka xudwa comme roykaay boo xam ne dañuy roy ci moom parce que am na ci jikko yu baax yi yoo xam ne danga koy da ngay jàng xam ko xam mbaaxam nga def ko mais am na ci ñoo xam ne dangaa nekk waa ju baax góor gu baax jigéen ju baax muy def ba loolu ci yow te yëgoo sax ne dañ la ko war yonent bi kon tarbiya islaam am na ci loo xam ne ci xudwa xasana rek la roy bu rafet rek ndax Anas ibn Malik wax na ne liggéeyal naa yonent bi fukki ji at fukki at yoo xam ne masumaa wax ne li ma faalta kada maa qaala li qat li cheyin faaltuhu aw li cheyin ma taraktuhu li ma faalta kada aw li ma lam tafaal kada te bu fekkoon ne fukki at yooyu yëpp ci njumte la nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sañu koo bàyyi ci njumte waaye loolu liñ ci déggee mooy Anas dem na ba am qudwa xasana ba xam sallallahu alayhi wa sallam dégg nga mawaqi rida li koy gërëmloo lim tere muy def lim digle di bàyyi lim tere topp alquran topp sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa ba tey mu jubal la yóbbu la ci saraatul mustaqim yoon bu jub nag mënta ànd ak jukko yu yàqu kon lislaam dafay yar jaam bi pour mu am ay jikko yu rafet yoo xam ne nii ci lay nekkee jaamam yàlla bu baax boo xam ne dafay baax pour boppam baax pour mbokkam baax pour dëkkandooram baax pour xamaaleem ndax bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fala yuzi jaarahu ku gëm yàlla gëm àllaaxira bu mu lor dëkkandooram kon nga xam ne yaram islaam jàngal na la pour nga nekk dëkkandoor bu baax yonent bi wax ne nekk naa ak jibril taxaw ak moom ba saxaaba yi abdullah ibn umar ñu koy gis ne dañ ko mujj yëram ci taagaay bu yàgg bi taxawaay bu yàgg bi ba mu ñëwee nag xam ngeen lu ma taxawoon ñee déeréen mu ne jibril laa taxawoon ak mu may dénk xàqi dëkkandoor dëkkandoor maa zaala jibril yusini bi jaari xatta zanantu annahu sayuwaris jibril di ma dénk xàqi dëkkandoor ba ma foog ne dëkkandoor dana doon dëkkandoor ma dëkkandoor boobu mën naa nekk kaafir mën naa nekk mushrik mën naa nekk lu mu mën a nekk waaye yow sa ci moom yàlla la ko yonent bi sallallahu alayhi wa ci téere yi njëkk yi melal nañ ko ne yàlla daf ko yónni pour mu ñëw ubbi xol yi nga xam ne dañoo tëj ubbi bët yi nga xam ne dañoo gëmm silmaxa ubbi nokk yi nga xam ne dañoo tëx yàlla melal ñi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuñ mel الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون من ñoo texe yàlla قمنا بني nga xam ne yonantu la rasul la waaye nabiyu la nga xam ne fekk nañ ay màndargaam ay ci tawraat fekk ko ci linjiil yonent boobu lan lay digle daf lay dafay digle lu baax dafay tere lu bon daf leen di daganalal lu teey di xaramal ci ñoom lu bon di dindi di leen teggil lépp loo xam ne nii maanaam jafe-jafe la yoo xam ne yàlla tegul leen ko yàlla ne ñi nga xam ne nag dañ koo gëm moom yonentu ko dimbale ko topp leer gi nga xam ne moom la yàlla ci yónni ci moom mu ne ñooñu ñooñu tax gëm yàlla topp ndigal yi bàyyi tere yi alquran boo ko doon seet ndigalam yeeg tereen yi ak li muy oote jëm ci bu fekkee ñetti xaaj la danga gis ne benn li xaaj bi li ci li nekk ci alquran yépp ci soññ nit ñi ci jëm ci jukko la yonent bi sallallahu alayhi wa Eh, nit ñëw na ne ko man jëfi lislaam yi dafa bëreeg man dama bëgg nga digal ma lenn loo xam ne nii moom laay def mu ne ko qul amantu billahi bi mastaqim lislaam nag buy yar nit ki pour jikko dafay fexe ba def ci nit ki maanaam eh, gardien ci boppam mu dem ba nga xam ne moom li ko war a garder mu ngi ànd ak moom li ko war a garder mu ngi ànd ak moom loolu mënta am teg di gëm yàlla nekkul foofu loolu nga am damir xay nga xam ne sa xol moo fi nekk moo lay garder bu la kenn gisut sax danga fekk ne yow jomb nga def nangam yow comme jullit jomb nga def nangam xadis ji nga xam ne ci nettal ne dafa ànd ak abdullah ibnu umar ñu nekk ci tukki ñi laal seen sufra laal seen taabal pour lekk fekk ñu ngi gis benn sàmm abdullahi oo ko ne ko ñëwal nga lekk mu ne ko man damaa oor mu ne ko ah ci naaj ci naaj bi mu ngi amee ay gàtt abdullahi ne ko ndax doo ñu rattal dara ci ci gàtt yooyu mu ne ko ah man gàtt yi moom moo ko di sama sang moo ko moo ma ko sàmm la doo ñu si jaay moom moo ko sama sang moo ma ko moo ma ko moo ma ko sàmm la mu ne ko yow sa sang bu nekk fi di balay wax dara mën nga ko wax ne ko till baa ko lekk rek di ko seet lu xale bi di wax xale bi yëkkati baaraamam fi asamaan ne ko fay na Allah kon ana yàlla xam nga yar nit ci lislaam dimbali ko jàngal ko ba bu wéetee mën a laaj boppam ayna Allah lii mën naa ko def waaye ana loolu force mu jiitu ci yar nit ki mu xam ne jaam la buñ moom bu am borom bu am lu mu bëgg ci moom am lu mu bañ ci moom am lu mu ko dig ku defee li mu bëgg am tim lu mu ko war yare bu fekkee uti naa lu bëgg ñu ne Abdoulaye mu ngi ci yoon di dem Medina waaye mu ngi mu ngi répété baat bi di baat bi xale bi doon wax rek ayna allah ayna allah ayna allah xam nga xudur ma allah tabaraka wa taala loolu dem ba yow yaa ngi teew ak sa borom ci mboolem xarakaat yi mooy rek sëkkanaat yi ku am loolu moom moo nekk aji gëm ci yàlla bu gëmee yàlla bu demee ba fàtte sax inna llaziina ittaqaw izaa massahum taa'ifatun mina shaytaani tazakkaruu fa izaa hum mubsiruun yàlla ne ñi ragal yàlla bu leen keneen seytaane laalee sax dañuy fàttali ko xale boobu nekk na ci xelam ba mu dem ba Medina mu laajte xale bi kuy sangam mu jënd ko ci sangam jënd gett gàttam yi goreel ko ne ko demal nga jaamu sa borom ellente woon ku gis mu mën a baax te am yu bëri yu mën a yàq mbaax ñu mën koo dimbale ba tar du yàq mbaax du wàññi dara ndax dafay dañuy am rek société bu baax yaram lislaam teewlu yàlla ci yarab lislaam sa jikko yi xam lu baax ak lu bon ndax saxaaba dafa ñëw ci yonent bi sallallahu di ko laaj lan mooy lu baax ak lan mooy bàkkaat yonent bi dajale loxo bi sallallahu alayhi ci dënnam ne ko laajal sa xol bi laajal sa bakkan ne ko yow waa bi البر ما أطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والاسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوا منكو لي باخ لي بوندار من لا بغا خم يونت منكو لو باخ وي لو خم ني سخل دال lu bon mooy loo xam ne ba nga ko bëggee def sa xel la am ne ah kii bu ko def te yow kii nii la óoloo dénk la xaalis nga nar koo lekk tegoo ko fenn mooy benn baat boo xam ne yaa ngi ko teg ci moom mbaaxam ak óolu bi mu la óolu xaalis dañ ko sàcc xam nga loolu lii la sabakan di wax noonu rek loolu waat la waaye est-ce que nit ku nekk am na xol boo xam ne bu ko laajee mu wax ko dëgg ci am xol boo xam ne bu ko laajee moo ko dëgg mooy ki sàmm xolom bi ba yàqoo waaye ki topp ñaawtee fi kallaa barraana ala qulubihim maa kaanu yaksibu ñi nga xam ne seen xol dem nañ ba xàmmeetuñ dëgg ak nar parce que dañoo mooy yàlla ba loolu ba loolu muur seen leeri xol waaye booy topp yàlla fekk tim jàngal nañ la lu baax jàngal nañ la lu bon lii moo baax lii moo bon يلا وأنا فلا اقتحم العقبة وما أدراك وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم زي ما سوى كو خمنا يلا جبلنا ليوم الباخر ويقولون خلنا الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم سماوات وأبصارا قليلا ما أدري yàlla ne jubal naa ko ñaari yoon war naa ko lu baax war naa ko lu bon waaye moom toppul lu baax li mu ngi topp yoon lu bon ki ñu wan lu baax wan lu bon nag kooku moo am xol boo xam ne fekk yàquwut bu laajee xolam rek xol bi dana ko wax ne ko naa la yonent bi li nga xam ne danga koo xalaat sa xol di ci déngi déngi li tax sa xol di ci déngi déngi mooy yàngi xalaat lu ñu jur ëllëg lu ñu ciy wax ëllëg waaw ndax yow dana soppi sa tur bi xam nga di di wax dëgg di wax dëgg bañ tuddee la wax di dëgg nga toog rek ñu soppi sa tur bi tuddee la fenkat ku ji doon sax ñu ne ko bàyyam fenkat la ko tuddee foofu lay jaar fay bàyyam noonu te nit ki mën naa tuddee boppam fenkat te loolu nag tey jii tey jii la gën a yomb tey jii la gën a yomb ndax nit ñi dañoo oyofal fen léegi nag boo xamee ne nit mën naa fen fen boo xam ne mën naa tukkal àddina mooy fen yi nga xam ne nii réseaux sociaux yi ci lay jaare dégg benn baat ngay wax rek fii ngay toog bés bu mu boo xam ne yow mën naa am bàkkaat yi benn nit la ci doon am nga am ci bàkkaat yi milliard loolu lu jar a bàyyi xel sañ-sañ loo bëgg a def rek def ko parce que jàpp nga ne dara du ci fekk waaye lu ne di def dara du ko ci fekk amul def lu baax am lu bon amul fenn waaye def lu bon am lu baax te amul fen waaye kii ñu mooy xàmmee war naa bokk ci sa yar nga xam ne ni seytaane lakum aduwwun fattaxizuuhu aduwwan seytaane seen noonu la na ngeen na ngeen ko jàppee noonu koo jàppee noon waxoon ne doo dajeeg moom de bo dajje ak mom it do ko top bu lu dingale do ko top bu lu laye bi doo topp laayee biiram ndax mom lu ñaaw rek la lay digal nga moy tindi ku ko topp dénkaan yoon ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom nga xamne lu bax la lay digal bo samwantik jiko yoyu yow yaay dëkkandoor bi yow yaay dëkkandoor ki nga xam ne sa ami la ci euh, Facebook wala yaa xam loo a tuddee sa la dëkkal ak moom dëkkandoor bu rafet boo demee ba xam ne moom du dëkkandoor bu ñu mën a dëkkandoor xam nga dëkkandoor yi léegi ci kër yi sax jafe na jafe naa euh, fii de koñ bi baaxul ma toxu léegi mën na laa jafe nga dëkk foo xam ne bëggoo faa dëkk waaye kii yaa ko tànn def ko amee wala moom moo la tànn bu la neexee nga bloqué ko bu la neexee nga bañal kii loolu tëjal loolu réseaux sociaux yi amul melokaana bu ñu koy waxee ne moom la mu mel ni rek bàyyi bindoon na benn téere bu ñu wax xujjatul baaliga fi kaw ni isaatil quran saaya li ko waraloon boobu fekk na am bu ay borom xam-xam ci Nigeria ñuy werante ñu ne ndax rajo dagan na waa ji boo gisee arab yi mu bind arab yi ni mu baaxee waaye xalaat bi ni mu suufee nga xam ne nit mën naa jàng boobu nga dee ba pare am xalaat bi suufee parce que moom dafa jàpp ne mu ne rajo lu ñaaw lañ ci def kon dafa xaram kenn waru cee teg alquran bàyyi ne ko rajo amul atte rajo atteem mooy li ñuy def ci moom bu fekkee dañ cee teg lu baax atte lu baax lay amee buñ ci tegee alxuraan ate alxuraan lay amee xam nga tey jii kenn gëmatul ne mës nañoo toll fi ñuy waxee ndax rajo mën nañ cee teg alxuraan wala war nañ cee teg alxuraan réseaux sociaux yi nit ki mën na koo jëriñoo dëgg-dëgg ci luy luy jëriñal lislaam kuy oote jëm ci yàlla yéen a ngi am jotaay tey mbokk yi warnu di ko tasaare lu ci baax rek mu ngi dugg ci buntab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal nekk ne ñi jot ci ban ñi fekkee nañ jotal ñu fekkeewut li yuballigu shahidul ghaiba rubba muballaghin aw aamin as-saami'i ki fekkee na ko jotal ku ko fekkeewut tey jii réseaux sociaux yi léegi-léegi nit mën na koo jëriñoo ci loolu ndax yaa ngi toog fii tey ke nekk ci Amérique di la déglu ke nekk ci Sénégal di la déglu waaye tim bu fekkee ne safaan ngay def tim ne ko noonu sa safaan bi noonu la gën a gaaw a tasaarooyee ndax nit ki def bàkkaat moom kenn baaxut waaye def ko defloo ko ay nit mu gën a bon fen nag moo ci bëree bëree bëree bëri ba nga xam ne dëkk yi nga xam ne dañuy sàmmanteeg loolu sax am nañ police boo xam ne moom mooy topp fake news maanaam xabaar yi nga xam ne nii wérut yow nag comme amoo dëkk bu lay toogal loolu amoo société bu lay toppal loolu yow ci bopp sa bopp yow yaa war a sa bopp nga nekk nit koo xam ne nii mun naa xam xammee lu baax bu ci jël mu jël lu baax am na ñoo xam ne dañoo foog eh maa ko gis ci Facebook laa ko gis ci YouTube laa ko gis xamuñ ne YouTube mooy mooy waaja fa nekk mooy waaja fa dugal affaire bu waaj nekkee fenkat YouTube fenkat la bu nekkee wax kat si dëgg YouTube nekk wax kat dëgg mais am na ñoo xam ne fi ne nii luñ gis ci réseaux sociaux yi sax moom lañ gën a mën a dëggal ndax dañoo foog ne lii moom dañ koo càmbar fekk càmbaruñ dara natt la boo xam ne nit ku nekk mën naa toog fi mu di wax lu ko neex ñëpp di ko ci jot waaye nañ xam ne wax lu la neex am lu la neex amul fenn def la neex am la neex amul fenn jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dafa jullit dafa war a sàmmanteeg dafa war a sàmmanteeg wax dëgg ci lépp lu muy wax ndax yàlla wax na ne innama yaftari alkaziba alladina laa yuminuuna billah ñi nga xam ne ñooy fent ay duut nga fenn sax nit ki mën naa dégg dara loo xam ne dëgg nettali ko mu mujj nekk fenn ci moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami doy na nit ki fenn lu dégg rek nettali ko am na ñoo xam ne xibaar bu leen ñëwal dégg rek ñu partage mën naa am ñu koy def xamuñ ne loolu mën naa boole nit ki ci fenkat yi إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور إن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق فإن الصدق بر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne na ngeen moytandiku fen ndax fen dafay yóbbu nit ci ci ñaawteef ñaawteef dafay yóbbu nit ci safara te mu ne nit ki dana fen di topp fen bañ bind ko ci yàlla mu nekk fenk nangeen di wax dëgg ndax dëgg mbaax la mbaax dafay jubale jëm ci aljanna te nit ki dana dëggu di topp dëgg bëñ bind ko mu nekk fa yàlla mu am sax sax daraja tu siddiq te xam nga ne siddiq yi nii ban daraja lañ am ulaayka leen an'ama Allahu alayhim min ne wa yi yàlla jiital na leen sax ci wa shuhadaa wa sunu wu daay kaafi bu nit ki xamee loolu dana xam ne dëgg-dëgg wax dëgg moo boole mboole mi xeeti xiw yi waaye tim fen moo boole mbooleem xeeti ñaawti fi waxoon nañ ko sànq ne fen bokk na ci ayaatil munaafiqiin te jumtukaay la yoo xam ne nit ñi ñu koy jëfandikoo ci fenn ci yàq ci façon boo xam ne taal nañ ci sax ay dëkk ci fenn yoo xam ne nii aju ci dara lu nit ñu war a moytandiku la ba ci fenn ci say njaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dafay dindi barkeeb njaay te ci réseaux sociaux yi am na ci wax na ci la dañu def advertise mbir yoo xam ne ni ci façon boo xam ne ni boo ko jëndee ba mu agsi ci yow ngay door xam ne yow marchandise bi dara jarloo ko lu may fenn sàmm kóllëre aw foofu laa général kaana masuula yàllaa ko wax na ngeen sàmm kóllëre jumtukaay la boo xam ne nit ñi mën nañ cee liggéeyal yàlla ko ni ko waxee jumtukaay la pour woote jëm ci yàlla jumtukaay la pour xamante ñi nga xam ne ni ñi doon jàng sànq defe naa loolu la jàng jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li ta'aarafu leen ngeen nekk ay giit dégg nga ak ay qabila pour ngeen xamante jumtukaay la boo xam ne mën nga cee xamante ñu baax ñu bëri ci lañ xamante ñi xam ñu bëri ci lañ amee sax école yi nga xam ne ci lañ jàngee ba nekk ay cadre dégg nga di jëriñ seen bopp di jëriñ seeni njaboot waaye tim jumtukaay la boo xam ne euh, yàqute la boo xam ne tey muñ ci poos parce que bu njëkk nit mën naa yar doomam ci këram tànnal ko sax école boo xam ne jàpp na ne école boo xam ne nit ñi ngi sàmmanteeg discipline sàmmanteeg këram yan xeeti film lañ ci war a seetaan léegi la waaye bu njëkk hatta cinéma yi ci kaw wax da ngay gis ay film yoo xam ne dañ ciy bind interdit moyen de dix-huit ans dégg nga ku amul dix-huit ans aaye nañ ko ko dégg nga sax ku am dix-huit ans sax seetaan lu bon jigu ko rawatina nag ku ko amul. waaye boobu ñoom ci xel rek la ñuy jëfandikoo ne suñ xale yi moom nañ leen teetal yenn yi moo tax boo ñëwee ba Amérique ba ci France ba Espagne ba ñuy yëpp ba léegi am na ay film yoo xam ne télévision bu koy génnee ba la ko génnee xaaju guddi parce que dafay gis ne lii du xale yi parce que xale yi ñoo gën a gaaw loolu ci mbir mu mel noonu léegi nag nga am jumtukaay boo xam ne mu ci sa sa xale bi mu ko am ci poosam parce que mu ngi jàngi te léegi-léegi mu am problème yi oto te daf laa war a oo nga ne léegi xale bi bu am téléphone bu amul téléphone gis ne moromam yi ñu ngi koy am bu ko defee loolu am na beneen affaire bu muy def ci moom bu ko defee muy dem ci ñoom di wàllaxaani léegi nooy def da koy kañ téléphone wala boo boo ko joxee téléphone yow man ngaa soob waxtu wu nekk di xam téléphone bi lan la ci xool wala lan la ci xoolut mënuloo li nga man mooy da nga war a yar ba mu xàmmee lu baax ak bon bam xamne li dafa bax li mo bon mu xamne li pour téléphone pour faratam yi la mu jël faratam yi def ko ci du pour sank waxtu parce que Facebook YouTube amna ño xamne xam seen dund bi yépp ci lañ ko sanké deng ta barakatul barakatul umri fi loqti barkay dund nit ki moy ci waxtu nit ki dana dund fanwéri at fekk fukki at lam de parce que ñaar fukki at yëpp fukki yi daf ko nelaw fukki yi mu caaxaan ko defee na fu mu fanweeri at man mag mu am fanweeri at nga ko bëgg a fontoo fekk mag moom fukki at la fukki at la am ndax guddi bu nekk dana jël juróom-ñaari wax waxtu def ko ci téléphone am bi def ko ci Facebook Facebook yi nga xam ne tey jii yow da ngay cliquer léegi pour gis benn aaya alquran ñu indi la benn góor bu def yaramu neen wala benn jigéen bu def yaramu neen loolu muy firi mooy bàyyi lu am fayda li nga doon def ñëwal ci ñàkk fayda ñu ma ne oo sidna Omar ne bu kenn nekk ci yéen sëbax leneen mooy koo xam ne mu ngi nekk ci waxtu woo xam ne defu ci lu koy jëriñ ci àddina wala mu loo xam ne nii daf koy jëriñ ci àllaaxira waxtu wi li jara sàmmante la Facebook nag mën nga cee am waxtu bu baax am na ñoo xam ne ci lañ amee oustaz bu leen jàng ci lañ jàngee tëj ci alquran ci lañ jàngee hadis mais am na ñoo xam ne jëriñoo lu may bu jeex rek ñu dem sa beneen bu ñu nelaw nag loolu la ñuy nelawee léegi am na famille yoo xam ne nii am na jigéen yoo xam ne Facebook mooy seen wujj waaw am na góor ñoo xam ne Facebook mooy seen jabar parce que dañ nekk guddi yëpp nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci seen jabar seen famille duñ leen gis ñu ngi ci rek loo xam ne nii bu fekkoon ne sax loo xam ne daf leen di jëriñ suba ñu ne mu ngi ci liggéey ba di ñëw bu fa amee dara bu ñëwee faj soxlaay waa kër gi waaye mu ci biir kër gi waaye famille yi na am na famille yu bëri yoo xam ne dagg na ngir loolu ndax fukki ñetti nit a ngi kenn du wax ñetti waxtu ku nekk dinaa ñëw te li muy xool nag amul njëriñ li muy xool amul njëriñ loolu loolu lu jara lu jara bàyyi xel la lu jara bàyyi xel la loolu buntu la pour euh, pour liggéey am na ñoo xam ne ci lañuy seen seen commerce yi ci lañ koy jëndee ci lañ xamee seen seen ci lañ amee seen partenaire ci lañ jaaree liggéey ci lañ jaaree langal kon ñu wax ne dafa bon waaw waaye nit ki moom mooy nekk euh, xam ne lii jumtukaay la rek ci jumtukaay yi comme sa paaka bi la rek waaw sa paaka bi dagg ci sa ndawal saaf ko rek baax na ji duna tëre waaye boo ci buggee boole nag dagg sa baaraam yi yooyu nga xam ne yow yaay lool sa bopp bunt la boo xam ne tim nit ñi dañ koy jëfandikooku pour tooñ pour suxriya dégg nga jëndee benn nit du nekk nga wax ci moom dégg nga te amuloo ci benn intérêt lu may yow yaa ngi da ngay jàpp ne kii nii waaju màgg la goo xam ne ku siiw la ku ko wax lu ñaaw da nga am ay vie te yow nangami vie rek nga nga soxla nangami yoo xam ne nii xanaa xalaatoo ne yaa ngi am malaaka yoo xam ne ñu ngi bind say yu baax yi di bind say yu bon yi bàyyi wax ne buur bu am ni yàlla nga toog suba ba ngoon bindoo ko leetar lu may diw dem na diw diw diw diw perte na diw ñëw na diw diw diw am na diw ñàkk na seetal yooyu sax nga xam ne jëriñu dara waaye lorom bëriwut waaye nag diw kàccoor la nit ku baax nga ne kàccoor la nit ku baax nga ne nangam la di di nangam la dégg nga ubbi sa làmmiñ ku la neex rek nga wax ci moom lu la neex dégg nga te mën a àgg fu nekk ba lu ñaaw ba pare nag mën a tasaaroo lu ñaaw yépp lañ war a moytandiku waaye lu ñaaw yoo xam ne nii mën naa tasaaroo fu nekk dëgg-dëgg nit ku nekk war na koo moytu nit ku nekk war ngaa jël jumtukaay yi mu nekk jumtukaay yoo xam ne buy jëriñ la nga jëriñoo ko jokku ceeg sa mbokk yi kenn amatul lay fi mu ne nii ne mënuloo jokku say mbokk kenn amatul lay sax ne mënuloo yónnee eh, eh, dépasse ca kër ndax yooyu yëpp jumtukaay yombal na ko waaye ni yombalee mbaax loolu la yombalee bon kon liñ war a def mooy nit ki lañ war a fexe bu baax nit ki nañ ko yar nañ yar xale yi bu leen yaree buñ baaxee luñ amati bu baax waaye buñ leen seetaanee nit ki bu yàqoo lum amati mu yàqu bu amee nag yooni kàccoor nga xam ne léegi nit ki daan na kàccoor kàccooram mu am ci boppam waaye léegi nii tey nii daf ci am lay te ñii lu leen neex koo xam ne mën naa mën naa def mu neen ci Facebook yónnee ko benn xale benn xaritam dégg nga ñaaw na ba ëpp waaye di ko utal seede boo xam ne ne xamoo fan lay em ci dund bi dëgg-dëgg loolu yëpp lu lu lu lu lu jara seet la lu lu jara lu jara mooy tëndiku la ak ñi nga xam ne ñi ngi ci biir léeg-léeg jox seen bopp ay ñooñu ay kii yoo xam ne nii euh, tur yoo xam ne du seen tur dégg nga pour pour pour nax ay nit alak ay nit yooyu yëpp yooyu yëpp mu ngi ci biir nit ñaa ngi koy jëfandikoo ci façon bu nekk am na ñoo xam ne ñu ngi jël ay tur yi kilifa jël ay photo yu ñu ànd ak ay kilifa dem dugal ci Facebook yónnee benn nit waaye na maa kilifa gii la bu ko defee pour kooku euh, lu mu la wax nga ne ko man la diw bu ko defee kook moom def na ah comme de comme kilifa gi mooy wax man kii moom lu mu wax rek dëgg la bu ko defee fekk kilifa googu nekk ci loolu amul jotam moo tax nit ñi nañ bàyyi seen ci yooyu yëpp di dem waxtu wi xam naa ne euh, dem ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla xiir ci dimbal ak ci liñ gërëm ñu ngi gërëm mbokk yi julli ñëpp ñu teew góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi gërëm mbokk yi eh, sénégal yëpp ñu ko jaarale ci conseil waa suñ mbokk yi eh, touba yi suñ mbokk yi yi suñ mbokk yi eh, seydi seydi ak mbokk yi nga xam ne teew nañ sax te kenn leen suñ mbokk yi espagnol yi suñ mbokk yi français yi ñu teew yëpp yi ñun ñëpp ñu ngi euh, rafetlu seen teewaay di ñaan yàlla yàlla nangul ñu euh, jëf yàlla xëy ñu ci li mu bëgg ak ci li mu gërëm yàlla fajal ñu mbooleem aajo yi li ci dul mooy yàlla du ci yàq ak mbokk yàlla xool jëm ci suñ mbooloo du ci yërmaane ak bëti ngërmaane yal yàlla saafara suñu way feebar yal yàlla saafara xol yi nga xam ne tamit dafa feebar ndax ràgg xol yi ràgg moo gën a gën a màgg ràgg yaram yi ndax yàlla dana ràggal yaram te fekk jubluwu ci lu may yool borom rek ndax laa xayra fii jismin laa yamrat jëm joo xam ne du feebar yent bi nee na benn xiw nekku ci ji ku gëm yàlla feebar waaye feebari xol yi mooy li nga xam ne mooy safaanu gëm yàlla xay daal mooy loo xam ne dafay sori nit ki yàlla yal yàlla musal ci xay àddina ak defal ñu jàmm ci réew fii réew la ndax euh, ku nekk ci réew boo xam ne fële sa liggéey nekk fële sa famille nekk jàmmi réew moomu sa jàmm la ñu ngeen di ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm fii ngeen nekk ba nga xam ne may leen jiw boo xam ne li tax ngeen bàyyi senegal te bàyyiwu leen ko ñëw fii waaye da ngeen ñëw fii pour mën a jëriñ seen bopp jëriñ seeni famille jëriñ seeni réew yal yàlla yombalal leen loolu yàlla jox leen ñun ak ñun yéen yëpp. هيو دك بيك هيو وار بي موسى نيون اغيان هاي دك بيك هاي وار بي تانا يالا ديف جامو في السنغال ديف كو تي ادنا بي ييب رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة المسيان بركة الشيخ إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هو خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره من كتابه العظيم